baal nañ leen yal nañu yàlla boole jéggal ci weeru koor bi waaw dama bëggoon wax sama xalaat Marème warul dem seeti Lalla parce que bu fekkente ne Lalla ñi ngi naan dafa dof doful bu fekkente ne dof na it bu ñu Marème ñëwee mën na koy indi leneen su ma sañoon daal Marème mën nay toog bañ a seeti Lalla parce que yooyu day mel ni sax dangay diiju borom day mel dangay diiju borom Marème mënoon nay régler na régler rek na réglé teey gisul kële euh, jëkkëram na toog te réglé te xam ne bu fekkente ne laal la dof na dina nay xam bu fekk doful dina nay xam mais ma xamal leen leen ne de maram mi de sëyam bi waaju fi jóge nii ma ko gisee moo Cheikh Diagne Cheikh Diagne waaju lu bàyyi mareem Cheikh Diagne du bàyyi mareem de gis nga ko bi mu demee kër mareem lu def Cheikh Diagne du bàyyi mareem mu ngi naan nag laal la lay xelaa tax lii mais Cheikh Diagne mii li wax waxi yaay man ka naan mu bàyyi Marème mais du ko bàyyi su ma sañoon nag Marème du fa dem wax dëgg yàlla su ma sañoon Marème du fa dem ne mu ngi koy parce que loolu de indiwaat yeneen kii si bopp laal la loolu moom rafetlu ma ko benn yoon merci jërëjëf. salaamaaleykum wàllu xew TV luy naa leen ziar naa leen ci loo nekk yaa ngi ci jàmm. waaw en fait dama ñëw pour ton ci question bi mooy li ngeen ne est-ce que Marème war naa dem seeti Lalla waaw war na ko seeti comme jullit ak morom jullitam mais am na côté waru ko seeti parce que Lalla situation yi mu nekk nii Marème moo ko yóbbee parce que depuis Cheikh takk deuxième femme ci la Lalla commencé perdre connaissance te su demee dugg ci hôpital bi su jàkkaaroo Lalla. situation bi di gën a di gën a perte connaissance parce que moo ko yóbbee te bi mu ne yaay seex laa sees yaay seex dafa tiit boo ci kurus gi yaay seex moom sëy bi àndu ci mais seex bëgg-bëggam la asalaamaaleykum wa Sénégal ziar naa leen maa ngi am kontante bu baax a baax di seetaan tamit série bi nga xamante ne moo lëmbee réew mi mu am solo lool tamit mu am solo lool si loo xamante ne dañ si war a jàngat si ñaari way dencante ñoo xam ne dañuy dencante dama yaakaar na ni merem non kii laay wax laal la dafa am loo xamante ne moom moo ko xeex bu yàgg au début mais tey jii dafa li tax loolu mu ñàkk ko dafa am lu mu rëbbe jëkkëram te jigéen du rëbbe rëbbe jëkkëram li tax mu rëbbe jëkkëram bëggoon na am preuve bu leera leera leer ba jàpp jëkkëram népp mën a am ndam si kaw jëkkëram déedéet du loolu jigéen doo rëbb sa jëkkër li am na nu mu doon naxante ak jëkkëram ndànk ndànk yéen jigéen ñi da ngeen ne ñun góor ñi ay bébé la ñu koy xam ngeen ni ngeen di toje seen bopp jinax bu naxante ak jëkkëram jëkkëram dina ko wax lépp ni mu demee su boobaa foofu noonu jëkkër ji dootul xolom du sori ci mareem te bu boobaa mariage boobu doon woon ami mais tey ji rëbb gu mu rëbb jëkkëram laa gis ne ne tey ji moom moo dal ci kawam donte ka seex tooñ na ko mais daf moom dafa toñeer bi parce que kenn du rëbb sa jëkkër jëkkër borom kër la nag sëriñ la. lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor.